biotox anti-moustique mooy aar mag ak matu matu yoo am na booy piis ci rido ak moustiquaire ak booy diw ci moo leen di may seen journal de la santé dalli nag jàmm tey fukki fan ak ñeent ci weeru juin 2023 ñuy màggalaat bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel may deret ci àdduna si mu nekk ab bés boo xam ne dañu ko tàmbalee màggal dale ko atum 2005 gannaaw ba dogal bi jibee ci assemblée mondiale de la santé journée bi nag ab occasion la ngir delloo njukkal ñi nga xam ne ay volontaire lañu tàmm may deret ci àdduna si gërëm leen nit ngir jëf ju baax joojee nga xam ne euh, ñu ngi ci dëkk mu nekk nag ab axe majeur boo xam ne li ko yëkkati moo di fexe ba fépp ci àdduna may deret doon loo xam ne lu wóor la te dalal xelu ñëpp bu ñu sukkandiku ci organisation mondiale de la santé don de sang bu ne ab cadeau bu am solo la boo xam ne dina muccal bakkan yu bari te di ko def saay su nekk dina tax ba banque de sang yi am deret bu doy képp ku ko soxla rek mën cee jot mouvement mondial Billy naw Now moo doon tëgg altine ak talaata ab jaloog boo xam ne mu ngi soxal santé reproductive ndaw ñi lañ ciy séntu nag moo di sàkk waxtaan diggante mag ñeeg ndaw ñi ci lu soxal bépp jafe-jafe boo xam ne mu ngi aju ci seen santé reproductive te jéem a jooyanti jafe-jafe yi nga xam ne fës na fàng jaarale ko ci ab plaidoyer ngir ñu dugal ci koppar gëccu war Ismaïla Marcel Koli mbébét bi la dialogue xale ndaw ñi ak ñi leen féete mag pour ñu waxtaan ci lu jëm ci wàllum tubaab di woowee la santé reproductive ku ñu xamal lu ñu mel mooy Dame jaay di coordonnateur national bu alliance des jeunes. ndaje tey bii li tax mu am solo mooy dafa nekk benn daje bu war a dajale ay boroom xam-xam ci wàllum wér-gu-yaramu ndaw ñi mu nekk ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fi teewal gouvernement bi ñi nga xamante ne ni aussi ñoom ñoo bokk ci organisation de la société civile yi solution si jafe-jafe yi nga xamante ne ni ndaw ñi ñu ngi koy rencontrer surtout si seen wàllum wér-gu-yaram ku ne xam na ne ndaw dafa am ay soxla yoo xamante ay soxla yu boppam la te bu ñu amulee benn personnel de santé boo xamante ne ni tàggat nañu leen ci ñu jël en charge xale yi dafay sooxe bi la weccante xalaat nag ñëw na fi ñu ko daan xaaree ku ñu xamal lu ñu mel mooy chargé de projet mouvement Billy naaw Now Fadel Ba. dañoo seetlu que ni tey Sénégal jeunes yi amuñu pénc boo xamante ne war nañ fa mën a toog di waxtaanee si yenn mbir yi lu jëmee si seen santé sexuelle et tey forum bi dañ ko fay teg pour jeunes yëpp mën a poser seeni ay questions ci li nga xamante ne mooy santé sexuelle reproductive mooy yeneen ak yeneen ak yeneen ñun tey ñu mën leen jox xibaar yu baax yi pour ñu mën ko jëriñoo parce que pour euh, xam lan moo fi nekk cadre social ak juridique bi ba pare ñu mën a exprimer seeni ay besoins. ci njeexital ndaje bi organisateurs yi bëgg nañu fexe ba lënt lënt bu daan dox diggante ndaw ñi ak mag ñi ñu mën ko teggi waaye it fexe ba ndaw ñi saa yu ñu amee soxla ci seen wàllu wër-gu-yaram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 Bonjour chers auditeurs, ce 14 juin 2023 est célébrée à nouveau la journée mondiale du donneur de sang dans le monde entier. Officiellement désignée comme événement annuel par l'Assemblée mondiale de la santé en cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leurs dons. Elle est devenue un axe majeur de l'action visant à assurer l'accès universel à des transfusions sanguines sûres. Selon l'OMS, pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable. Le mouvement mondial Bilino No a organisé à Dakar les 12 et 13 juin un dialogue sur la santé de la reproduction des jeunes. L'objectif de ce dialogue est d'encourager un dialogue constructif et inclusif entre les jeunes et les aînés sur les questions de santé reproductive, analyser les différents problèmes qui entravent le plaidoyer du financement de la santé, entre autres. Ismaïla Marcel Colli. Ce dialogue est organisé dans le but de créer un cadre d'échange de partage multisectoriel sur les questions liées à la constructive et au bien-être des adolescents et des jeunes nous dit Dame Diaye coordonnateur national de l'Alliance pour les jeunes. Ce dialogue intergénérationnel sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes requiert d'une importance capitale dans la mesure où ça sert de cadre de réflexion et de partage sur les programmes et, et projets déployés à la fois par l'État du Sénégal à travers ses directions sectorielles, aussi à travers les organisations de la société civile sur des programmes pour renforcer davantage l'accès des jeunes aux services de santé de qualité. c'est également aussi une occasion pour les organisations de la société civile jeune de venir partager les actions qu'elles sont en train de faire dans le cadre de leur domaine, plus spécifiquement consistant à renforcer davantage et capacités des jeunes, également aussi de déployer des actions de communication pour un changement de comportement social. Un dialogue qui vient à son heure, soutient Fadelba, chargé de projet du mouvement mondial Billy que les jeunes n'avaient pas un espace de discussion euh, parler de certains thèmes au Sénégal qu'on considère comme tabou, mais qui est notamment des questions de, de problèmes sociaux. Et donc ce dialogue permettra aussi aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir exprimer leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Mais ce dialogue vient en son nom parce que ça nous permettra aussi de parler de certains problèmes qui sont aujourd'hui au Sénégal, notamment les mariages d'enfants, les violences sur les gens, mais aussi sur euh, les avortements clandestins qui